internet yi ñuy bàyyi xel ci seen point net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene defal tënkub xibaar tey samedi di 4 février ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. mbirum imaam Thierno Tidiane taal am na lu bees moom moom nga xam ne nag euh, néewam dañ ko gis euh, barki démb fële ca bassin de rétention bu zone captage euh, ci Grand Yoff gannaaw bi mu réeree ay mbokkam lu toll ci ñetti fan ñu ne nag lii di médecin légiste bi kon amal na ab certificat de genre de mort gannaaw bi ñu amalee autopsie ci li nga xam ne moom mooy néewam ñu ne nag boobule autopsie daal la mu wax li nga xam ne nag moom mooy kon corps bi gisuñu si daal daal euh, ay euh, gaañu euh, gaañu wante it yéreem fekk nañ kook moom lu ca mel ni kon yére ba mu soloon ak kaala bi nga xam ne moom la kaala woowoon ak ñu ne ab montre bu mu takkoon ci loxo ba akub jaaro loxo wante itam li nga xam ne moom mooy kurusam nee nañ daal loolu lépp fekk nañ ko euh, ca moom kon daal gisuñu benn gaañu gaañu boo xam ne daal wane na ne dañ ko méttital wala li ni mel euh, balaa muy faatu bu ñu sukkandikoo kon suñuy naataango yu journal Libération moom nag jébbal nañ ko boroomam démb fi mu nekk nii ñu ngi wéyal l'enquête bi. gannaaw kàddu yi nga xam ne nag député Amy Ndiaye yëkkati woon na ko ba mu indi woon sax ay coowa foofu la ci assemblée nationale ba mu jote woon fàkk ñaari député yu parti PUR ñi nga xam ne nag ñoom ñooy daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty yi démb amal nañ ab conférence de presse ca boobule daayira nag ñenn ci seen i responsable di euh, maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñu gën koo xam ci capitaine jël na fa ay euh, kàddu di xamle nag ne plainte yooyu nga xam ne Moustarchidine yi amaloon nañ ko bëgg nañ daal euh, yoon euh, addu ci jox leen ca suite wante itam ñu ngi cee doon artu ci boobule conférence de presse. sareetu fas yi nag boo moytuwul. fii diir rek bu yàggul dootuñu daw fi nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies Cambérène ak Grand Yoff ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko xam xamle ñooy euh, waa journal Le Quotidien ca entretien boo xam ne dañ ko amaloo nag Vincent Gomis nekk chef de service du dialogue citoyen fële ca ville de euh, Dakar. Barthélemy Diaz di meeru Ndakaaru moom nag moo séq waxtaan ak meeru ñetti communes yooyu nga xam ne tudd nañ leen ñoom nag kon dañoo bugg a jëlee daal charrette yi si yooyu les communes ñu ne nag dinañ leen remplacer ak li nga xam ne moom mooy ay moto tricycle loolu nag nee na dinañ ko amal euh, fii ak atum 2023 bi di jeex. xibaaru Afrique euh, dañ koy tàmbaleek euh, réewum Burkina façon foofu nag ka koy jiite di euh, capitaine Ibrahim Traoré moom nag xamle na ne daal li nga xam ne kon dañoo bëgg nguur ga dakaa bëgg lii di armée française jóge foofule ca Burkina Faso nee na loolu nag laalewul ak seeni relation diplomatique yi nga xam ne kon am nañ ko ak Paris kon nag waaw ñu xam te ne donte bëgg nañ armée française jóge foofule seeni relation ak France daal relation diplomatique yi ñu ne kon looloo du ca euh, du ca dindi dara dinañ kon ne kon di ko euh, wéyal wante nag weddi na li ñu naan ñii di euh, societé Wagner dañoo am ay éléments yu présent foofu foofule ca Wagadugu moom nee na euh, loolu amul muse sa mu sa muy sax di laaj kon bu fekkee euh, ñu nga foofule ano fan la ñu nekk ci biir réew ma. beneen xibaar euh, Afrique muy euh, Pape François mu ngi wëyal visitam bi nga xam ne mu ngi koy amal fii ci Afrique moom nag dem na fële ca Soudan du Sud ci événement boo xam ne nag euh, mu ngi fa doon waxtaan nekkoon fa sax ak kii di njiitu réew ma moom nag woo na ca ña nga xam ne ñoom ñooy dirigeant politique gu réew ma daal coow li ñu nekkee ñu bàyyi ko te nag accord yi nga xam ne Euh, signé woon nañ ko kon wala boog ay accords yoo xam ne kon amoon na ca mille 2018 ñu xool nag euh, ba yooyu le accord naka lañu koy daal jëmale ngir coow la jeex ca réew ma xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy nekk ca Chili foofa nag ay lakk yu métti ñoo fa am ay àll yuy lakk ba lu toll sax ci 13 personnes fi mu nekk nii ñàkk nañ fa seen euh, bakkan ñu ne nag yooyu le tàkk-tàkk di ay daay dafa ànd ak nag tàngoor bu tar ndax sax nee nañ am na fa ci dëkk ba foo xam ne day tàng ba yegg ci li nga xam ne moom mooy 40 degré bu ñu sukkandikoo nag si ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñii di autorité ñuy ragal nag mbir mi ëpp leen loxo. xibaaru sport lañ koy jeexale gayndey Sénégal yu équipe locale bi bésub tey bii la ñuy jàkkaarloog waa Algérie ci final bu championnat d'Afrique des nations foofu la ci Algérie nga xam ne sax ñoom ñoo organisé mbir mi muy final boo xam ne nag euh, xam nañ ne du yomb wante nag ñii di gaynde yi daal euh, taxaw nañu temm ànd ak euh, seenu fula ak jàmbarte gu mat fas yéene nag dugg ci histoire bu ñu gañee li nga xam ne moom mooy boobu le coupe d' Afrique euh, boobu le championnat d' de des nations bi ñu ko gagné nag day nekk lu njëkk lii di réewum Sénégal di ko jël lii la ñu leen tey ci xibaar rabal seen teewlu dañ jox di daje altine jaa ngeen jëf.